أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دامكم في توب ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko balaa ñuy dugg ci dars bi rek jégalu leen samedi bi passé yàlla dafa def ma demoon risaatol doon leen defal conférence moo tax gisuñu leen ñu woon samedi ñu ngi jégalu bu baax a baax ndax samedi yi sax daawuñ ci programme mais xam naa bii moom accident bu mag la jox nañ ñu date bi ñu bind ko ba pare ñu dem ba mu des ñetti fan ma vérifié ko dama yaakaaroon ne dimanche la ndeke samedi la te jàpp nañ ko ba pare mais samedi yi moom daanaka dañ ko jagleel tafsir booba du ñu bëgg di ko programmer leneen noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura al araf ci kàttanu borom bi bu nu yàlla dimbalee ñu war a jël tey juróomi aaya 65 66 67 68 69 juróomi aaya yoo xam ne sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu ngi ciy jàngal juróomi mbir mbir yooyu ba ci jiitu mooy ad daawatu ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwaahu wa huwa maana laa ilaha illa allah dina bokk tey ci li ñuy jàng mbokk julit yi mooy leeral gi ñu sunu borom di leeral ne woote jëme ci yoonu yàlla ak bàyyi jaamu lu dul yàlla loolu ci tënk bu gàtt moom mooy maanaawu laa ilaha illa allah ndeke laa ilaha illa allah gi ñuy dégg guddi ak bëccëg muy génn ci sunuy gémmiñ di dugg ci sunuy nopp la muy tekki mooy day woote nanu jaamu yàlla day tere ñuy jaamu keneen ku dul yàlla ndeke loolu la laa ilaha illa allah di tekki laa ilaha illa allah ñaari baat la day dàq di saxal laa ilaha day dàq illallah day saxal moom laa ilaha illallah dafa am ay charte nit da ngay dégg léegi ñu ne ku ne laa ilaha illallah rek dugg àjjana nga dégg moo tax nit ñi di ko fawee sabar yeeg stade yeeg soirée yeeg caaxaanukaay yëpp da ngay dégg laa ilaha illa wala ku nekk ngi wax waaye laa ilaha illallah gi yàlla bëgg nu dund daa am ay charte dafa am surut laa ilaha illallah googu caabi la loolu ñu naan clé boo am ay bëñ boo xam ne boo ko dugalee ci bunt soo ko yëngalee tourné ko mu daal di ubbi loolu mooy maana laa ilaha illallah laa ilaha illallah li muy tekki mooy day woote jëme ci nañu jaamu yàlla kese bu ñu jaamu kenn kudul yàlla loolu mooy maana laa ilaha illallah léegi nag nañu xool ku mu mun a doon ci ñun xoolal yow sa laa ilaha illallah ndax jaamuloo na la yàlla ndax bàyyiloo na la jaamu keneen kudul yàlla bu fekkee def nga loolu sa laa ilaha illallah wér na waaye bu dee ba léegi yaa ngi wax laa ilaha illallah di bokkaale sa laa ilaha illallah wérul ñaareel gi mooy mashruiyatu daf'i al ittiham ñi ngi yoonal sharia mu ngi yoonal lislaam mu ngi yoonal dindi tuuma waaw dindi tuuma boroom xam-xam yi dañ naan dindi tuuma du ragal yow yaa nangam nga man defuma loolu wax dëgg yàlla defuma ko loolu tekkiwul da ngaa ragal di ndax sharia islam moo ñu sant buñ la tuumaalee nga taxaw leeral sa bopp ne liñ la tuumaal du yow nit ku nekk sharia moo la yoonal ci yow nga dindi tuuma waaye nga jéem a setal sa bopp mimma yuttahamu bihi min al batil liñ lay caaxa liñ lay joxoñ di la duut baaraam naan la yow yow yow yow yow fexeel ba yow googu bu mu nekk lu dëggu fexeel ba yow googu nga dax ko ba mu set wicc léeg-léeg ñu taxaw ne ñu yéen da ngeen a bañ mag ñi ñun dañu war a leeral loolu ne ñun bañuñu benn mag amuñu benn magu islam bu ñu bañ ndax islam moo ñu sant sax dañ leen war a ñaanal ah rabbana igfir lana wali ixwanina allazina sabaquna yemul foofu de mu ne wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu kon ñu mënuñu bañ kenn waaye lan moo fi nekk dafa am loo xam ne nag yàllaa ko moom su fekkee boo waxee li yàlla moom ñu ne la da ngaa bañ diw ba dëgg yàlla ñooñu ñooy wax rek waaye bañoo kenn wax naa benn waay yéen yéen da ngeen a compliqué yéen da ngeen a mel nii yéen da ngeen def nangam ma ne ko déedéet sa waay yàlla xam ne ne loolu ngay wax dara nekku ci ma ne ko ñun dañu ne dañoo war a julli loolu yàlla moo ko wax wala ñun ñoo ko wax ki bañ a julli nag ba pare naa la da ngaa bañ diw est ce que daf fekk ne da ngaa bañ diw yaag moom kan moo ne ci dëgg yàlla moo ne dañoo war a julli aqimi salaa wala yàlla wax ko léegi kii ne ñun duñu julli nga ni ko da ngeen a war a julli nag mu naan lu tax fi ñu koy teg ndax diw du abul julli kërti kërti da ngay wax mu ne da ngaa bañ kooku est ce que da nga koo bañ keneen ki mu ne yéen di ngeen ëppal ma ne ko déedéet l'islam ñeenti jabar la maye ku am 40 bokkatoo léegi boo nee l'islam ñeent la maye dama def dama am benn juma bu may jiite ma def ci benn xutba ma ne ku ëppal ñeenti jabar génn nga l'islam ñu convoqué ma convoqué ma ci bureau bi kay ma ñëw ñu ne ma yow bi nga jiitee keroog problème bi nga fi indi da ngaa dem fii tuuti ñu taal fii tuuti tuuti tuuti tuuti ma ne la laa def ñu ne ma taalibe diw ñoo fi ñëw nee na seen sëriñ nga doon xutba ma ne man ñu ne waaw ma ne déedéet ñu ne si ma daal di génne dictaphone bi ma ne déglu leen kan laa fi tudd sëriñam ñu ne noonu tuddoo sëriñ mais da nga ne koppal ñeenti jabar génn nga ci lislaam ma ne loolu man waxuma ko ah kon sëriñ bi daa ëppal ñeenti ñu ne ah dafa ëppal juróom-ñaar la ma ne kooku yëféer la kooku yëféer la islam moo ko wax man waxuma ko bu fekkee loolu moom mooy man maa man maa bëgg a taal fii yéen yéen a fi bëgg a taal yéen yàlla wax lii kii ëppal ko ngeen ne ngeen ne kenn du ko wax c'est ça loolu mooy wax bi soo nee nañ julli ñu dul julli ñu ne ñun ngay wax nga ne nañ yem ci ñeenti jabar ñu ëppal ne ñun ngay wax nga ne dañoo war a dem màkk ñi bañ a aji màkk ne ñun ngay wax nga ne dañoo war a woor ñi bañ a woor ne la ñun ngay wax ah léegi nag kon fu njëm Sénégal saa yoo defee benn waxtaan ci diine rek ñu ne kii kii kii kii ñun lay wax ñun lay wax damaa def benn émission RDV ci lan moo tax jikko yi yàqu ma ñibbi sama goro bu woo ma sama papaay soxna mu woo ma kër ga ma ñëw mu ne defal attention ma ne ko ah mu ne am na ku fi ñëw nee na tey seen sëriñ rek nga nekkee woon ci télé bi ma ne ko man mu ne waaw ma ne ko ah man de pourtant yow déglu nga waxtaan bi mu ne waa déglu naa ko kay ma ne ko dama fa tudd kenn mu ne tuddoo kenn de waaye danga ne am na kilifa diine gu fi nekk di maye ay xale yu jigéen te duñ tàggu seen ndey ak seen baay kon nee na moom sëriñam nga wax. nee na waaye tontu naa ko sa xel na daal nee naa ko yow mi yow yaa wax sëriñ bi maye moom moom tuddul turam mais ça loolu mooy wax bi da ngay gis ku jalgati lislaam nga wax ñu ne ki kii dee tooñ ana tooñaa nga gi alxuraan moo ne bu ñuy mayee jigéen nañ ko mayee fan kii hunna bi isni ah yéen eggali ngeen aaya bi di kon man maa ko wax yonent bi ne laa nikaaha illaa kon mu ngi noonu man waxuma ko di yàlla wax li yonent bi wax li léegi boo ko firee bàyyil tooñ bàyyil tooñ koo tooñ Sénégal kenn du wax diine ku wax diine rek am nga ko am nga koo wax yow da ngay tooñ yow da ngay dingat lii mooy problème moo tax tuuma yooyu da ngeen koy dindi waxu leen kenn tooñu leen kenn waaye wax leen li yàlla wax ak yonent jeex na nañ ko wax ci wax bu rafet masruiyatu dafil ittiham mooy yoonal nañ ci ñun yoonal nañ ci sharia yoonal nañ ci jullit yi suñ leen tuumaalee ñu dundi ko moom set ñetteel mooy min wazaifi rusul alayhimu salaam albalaaxa moo tax gis nga xoolal fii tey lii nii su may paree rek ngeen ne ngeen ne diw laay wax yàlla dafa yoonal ci yonent yi li leen yàlla jox nañ ko jottali léegi sëñ bi taxaw ne man de dafa am yonent bi lu mu mën a bël te yàlla ne ko yaa ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayka fa in lam taf'al fama ballaghta fama ballaghta risalata yàlla ne yonent jottalil li ma la jox soo ko deful benn waaye naa yonent bi kay man def ma nëbbal mbir mi daf ma koo jagleel man kese ay jagle la ci biir jagle ku wax dëgg yonent bi jottali ba taxaw bisu arafaat naaj bi tàng jër ñaq bi di walangaan ci kawam saxaaba yi yërëm ko ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi dañoo bëggoon yonent bi saxaaba yi dañoo bëggoon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lu bëgg lu raw seen bopp dañ ko bëggoon lool saxaaba yi daal di jël benn benn sër ñu daal ci def ñeenti bant ci côté bu nekk côté bu nekk ñu def ci yal na yàlla fay leen yéen borom lumière yi yal na yàlla jox leen lumière seen biir bàmmeel saxaaba yi mbokk yi daal di jël benn sër daal di koy kerale yonent bi alayhi salaam ñu takk ci ñeenti bant yonent bi ne alahal ballagt ndax jotal naa saxaaba yi naa mu ne allahuma fashhad soxee ba ci yàgg mu ne alahal ballagtu ndax jotal naa saxaaba yi ne naam mu ne allahuma fashhad yàlla matal na saaba yi matal na gaa yi ne waaw mu ne yàlla seedeel kon kay kooku naka la ñuy waxee ne dafa nëbb mbir mi est-ce que yonent bi am na droit yàlla ne ko yaa ayyuha rasul balligh bima unzila ilayka mu taxaw ne man dañ maa nëbbal mbir mi hmm? yàlla ne yonent jottalil mbir mi am nit taxaw ne yonent bi dafa daf maa nëbbal man kon bokk na ci fonction message yonent yi mooy albalaax mooy jottali lan la ñuy jottali lima umiru bi iblaaxihi li leen yàlla jottali loo loolu la ñuy jottali kenn ci ñoom amul droit yàlla ne ko jottalil mu ne damay nëbb am na benn téere bu ndaw bu tudd durusul awal boo fa demee da ngay fekk mu wax li war yonent ak li yonent warul def li war yonent ah ak li nga xam ne yonent waru ko def beneen mooy fadilatu nus wa xuluqul amaana dañ koy jël ci aaye yi fadilatu nus mbokk yi lii di laayante biir dafa am ay ngëneel yu rëy yu ci nekk te diina yépp loolu la ad diin an nasiha diina yépp laayante biir la waaye loolu ñu naan amaana dafa bokk ci màndarga yonent yi mooy al amaana al amaana yonent yi dañoo am kóolute yàlla da leen a wóolu ne leen li ma leen jox jottali leen ko jaam ñi juróomeel mooy istihsaan at tazkir bi niam fa inna dalika mujibun li shukri wa taa istihsaan ak tazkir bi ni am yàlla dafa bëgg dafa rafetal ci ñun xéewal yim ñu defal mbokk yi ñu koy wax nit du sakk jëf wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis te eh Mohamed istihsan ak tazkir yàlla dafa bëgg ñu ñuy fàttali waaye lan bi neexami ci xéewal yim ñu defal yàlla may nañu ay xéewal wala may nu ko ah kon yàlla mayuñu dara lu tax ngeen noppi yàlla may nañu ay xéewal ku ne ñem ñem ne nii wa ma bikum min ni'ma fa min allah xam nga lu tax léeg-léeg boo waxee ndax yàlla may nañu xéewal nit ñi dañuy taayal a tont xam nga lu tax jaamu nañu xéewal yi mooy ay millions ay milliards ay oto ay avion yu naaw ay gratte-ciel ay ay ay ay ay ah toog gi ngeen toog nii jàkkaarloog man may wax ngeen di dégg rek xéewal gënu koo rëy ñaata nit ñoo bëgg a ñëw fii mënuñoo ñëw ah tànk yi ngeen doxee tànk yi kan moo ci mën a fay yàlla dañ daan dem conférence gore ndeysaan bu ñu déparé fii def ay njaga njaay dugg salu ñu wàcc def conférence bi benn année ndeysaan ñu def dugg salu bi wàcc muy taw ñëpp ngi salu ma gis benn waay ndeysaan moo ngi raam ak yére bi ci taw bi ci ci ndox mi ci suuf si te ànd ak ñun kat moo ngi raam ak yére yi mu sol yëpp moo ngi raam yére yaa ngi toy xat mu ngi waxuma mu ngi tooy mais moo ngi takk suuf ma xool waa ji xool sama bopp xoolal ma sentir waa ji xoolal ni muy ni muy raame ci ndox mi ak suuf si suuf si takk ko yépp moom ñun ñoo bokk pas-pas ñun li ñu bëgg la bëgg li ñu indi moo ko indi nga xam ne mënoon naa toog ne man am naa ngànt waaye moo ngi raam nekk ci kanam jëm ci place ba ndeysaan ñëpp def benn convoi jëm ci terrain bi nit day sant yàlla li ñuy gis xéewal la wala du xéewal ñun ñuy xool fii xéewal la wala du xéewal ah ah xam nga lu tax xamuñu ne ñun gis xéewal la xamuñu ko ñun gis ñun xamuñu ne xéewal la xam nga lu tax parce que mosuñoo gumba benn fan wallahi bu la yàlla nattoon benn sec benn fan nga gumba amoon na benn waykatu américain bu gumba woon bu tudd xaw ma Steve woon na xaw ma Steven ah waaw da daan wax gumba la woon xaw ma mu ngi dund xaw ma dee na jamono yi ma nekkee xale dama daan dégg ñu ne dafa doon wax képp koo xam ne fexe nga ba mu xool adduna bi nu mu mel mu gis jabaram ak doomam rek dina la jox alalam lépp parce que ay mi milliardaire la woon képp koo xam ne fexe nga ba mu gis adduna bi ba mu gis soxnaam ba mu gis doomam dina la jox alalam allahu akbar xoola ñun ñu ngi xool kan ma fay yàlla facture boobu yaa ngi dégg wala loolu du xéewal yaa ngi noyyi yaa ngi dem yaa ngi ñëwaat yaa ngi tëdd yaa ngi nelaw xoola am na ñoo xam ne ndeysaan dañuy jékki-jékki du ñu mën a nelaw ñu yóbbu leen hôpital wala ñii dañuy jékki duñu mën a gis ñu yóbbu leen hôpital ñii dañuy jékki-jékki di fatt duñu mën a noyyi ñu yóbbu leen hôpital di leen samp oxygène ñii bëgg a dox duñu mën a dox ñii bëgg a wax duñu mën a wax yow loolu yëpp ma lim alhamdulilah maa ngi yow ndeysaan ñoo ngi ci war nañu sant yàlla wala war nañu ko sant mais sénégalais bu xëyee amul lu mu jënde cigarette rek soo ko ne ça va mu ne sénégalaisement quoi temps yi town bi dafa kii quoi dara bougéwul quoi affaire yi doxul quoi waaw dëkk bi daa makki saali saali nee na suñ la waxee nga ni dëkk bi doxul mu ne yow doxoo nga bëgg dëkk bi dox li la yàlla sant defoo ci dara yow yaa njëkk a bañ a dox ba pare loolu la dëgg de yow doxoo nga bëgg dëkk bi dox ça le problème ñun doxuñu ñu bëgg affaire yi dox te ñun doxunu li la yàlla sant dara nga ci deful dara dara dara dara benn waaye woo na ma sànq téléphone xaw ma mu ngi fi xaw ma ci tey mbokk yi mun naa mu nee fi mu ne ma kër gi may fanaan kër gi du ñuy yeew pour julli fajar léegi man du ma mun a ubbi buntu kër gi nan laay def ndax mën naa julli noonu wala ci biir kër gi wala xoolal kër goo xam ne du ñu yeewu fajar kër goo xam ne kenn du yeewu fajar kër googu barke dina wàcc ci kër gi ah abadan am na benn xutba bu ñu fi defoon xutba baa ngi doon tudd naka la ñuy def ba barke wàcc sunu kër yi kayfa nafaal hatta yanzilul baraka min buyutina naka la ñuy def ba barke dugg sunu kër yi barke kër gu amul barke kër googu alku nañu kër gu amul barke kër googu ku fa yeewu alku nga ndax lii lii baaxal nit du alal nit ñi loolu lañ jàpp alal da ngay gis tey ku am alal rek daan ne tekki na non sawaay tekki na tekkee gudde parce que lan parce que dafa am xaalis tekki na bu xaalis mooy tekkiloo nit wala yàlla lu mu wax da ngay dégg ñu ne ko am xaalis texe nga yàlla ba muy wax texe dafa ne dafa ne fa man zuhziha ani naar wa udxila al janna faqad faaz ku yàlla musal ci safara yàlla dugal la aljanna yow yaa texe ñun ñu ne Sénégal da ngay gis célibataire bu takk jabar sax booy texe naa teel na di takk jabar rek taxul nit texe kon yàlla dafa bëgg xéewal yi ñu defal ñu koy wax nit sant dafa war a def sant yàlla kon lii mbokk yi mooy juróomi aaya yi ñu war a jël ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi wa ila aadin axaahum huuda aywa aywa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون بارك الله فيك جزاك الله خيرا yal na nu yàlla fayal yiw mbokk yi sunu boroom subhanahu wa taala toxoon ak ñun ci yonent yàlla nuux mooy qawmu nuux mu ne ñu tey dem nañ beneen dëkk ak beneen yonent mu ne wa ila aadin axaahum huuda borom bi nee na jalla jalaalu di ñu nettali lenn ci ay yonent ci benn yonent bu tudd huud yàlla yónni woon ko ci dëkk bu tudd waa dëkk ba nuñ tuddoon qawmu aad yàlla alage leen ba ñu nag ba ñu bañee ci ngelaw ngelaw loo xam ne sarsarin aatiya saxaraha alayhim saba layaalin wa samaniyata ayaamin suma ba ñu lankalee yàlla yàlla yónni ci ñoom benn ngelaw ngelaw li di déjjati kër yi di leen yóbbu ba ci kaw di dóor ci suuf gëléem ni mu toll ngelaw li di ko yóbbu ba ci kaw dóor ko ci suuf guy garab lu mu dëgër dëgër ngelaw ngelaw li déjjati ko loolu ñaata fan juróom-ñaari guddi yu ànd ak seeni bëccëg la yàlla alak waa aad qawmu huud borom bi ne wa ila aadin aad umma azima benn peuple bu mag lañ nation ay ngand lañu woon waa aad yenn saa yi ngeen seetaan ci télé yi ñu génnee leen ay film ñu ne ñooñu ay lan lañ ay Goliath ah dañoo ngand kenn da ngay kenn fii nii la toll dañoo njool ponkal daanaka ñun ñi bu ñu doon ànd ak ñoom ñun ay tungune la ñuy nekk noonu la waa a tolloon est-ce que xam ngeen ne nit ñi bi yàlla bindee àdduna ba léegi nit ñi dañuy gën a wàññeeku mais jëmuñu kaw nit ñi dañuy gën a wàññeeku ci njoolaay nit ñi dañuy gën a wàññeeku ci am yaram cosaanu nit ñaata mètre la woon ah 60 xasab lii 60 nii nii Adama loolu la woon 60 yaatuwaay bi nan la woon 7 kon kooku menuisier bu ko bëggoon defaral lal ban lal la koy defaral léegi nag imagineel ñooñu nuñ tolloon guddaay 60 mètres yaatuwaay 7 te amoon nañ ay kër ñu ngi doon sol ay yére ñu ngi doon sol ay dàll léegi nag nit ñi di wàññeeku xoolal di wàññeeku di wàññeeku waa aat xam nga tey ñun buñ buggee tabax dañuy ñëw di jël ciment fii dit kii ñoom dañuy ñëw fekk montagne ñu yett ko dëkk ci ay fan ñu yett montagne bi taf taf def ko ay néeg ay kër dëkk ci ba léegi boo demee ci ay dëkk da ngay koy fekk trace montagne yooyu ñu doon yat moo tax mu ne umma azima xeet bu ngand la ñu woon ñoom waa aad kaanu aksar min ashara qabail ay giir lañ woon ay giir yàlla dajale leen ñoom ñoom ñu nekk qawmu aad comme ñun ni ñu nekkee ay giir Sénégal ñaata giir la ñoo fi nekk ah xam ngeen luy giir tukulóor yi ay giir lañ njaago yi ay saraxula yi soosa yi joolaa yi mankaañ yi loolu mooy giir xawmu aat fukki giir lañu woon comme ni ngeen jàngee banu israil ñoom ñaata lañu woon isna ashara fukk ak ñaar lañu woon moo tax bi Moussa jëlee yat ba dóor ko ci xeer wi fan farjarat minhu isna ashara aynan qad alima kullu unasin mashrabahum yàlla ne leen kulu washrabu min rizqillahi wala taasaw fil ardi mufsidin kon ñoom loolu lañu woon nee na wa manaziluhum kanat bi biladil arab xawmu aat ñoom ci dëkku arab yi lañ dëkkoon yonent yi yàlla yónni ñetti yonent dong ñoo ci arab ñi ci des ñëpp ay juif lañu ñetti yonent ñooy arab ku ko xam samedi bii di ñëw naa la indil montre dégg ngeen ñetti yonent ñooy arab ñi ci des ñëpp ay yahud lañ question boobu samedi lañ tontu bi bu ñu ñëwee ba la ñuy tafsir incha allah ñu teg fi montre bi ku wax rek jël ko samedi samedi samedi ne ko mu denc ko ba samedi min hadaratul mawt ila amman ci place bu ñu naan hadaratul mawt lañ tàmbalee ba dëkk bu ñu naan amman ñoom waa aad foofu lañ dëkkoon borom bi ne wa ila aadin fàttaliku leewun yéen xeetu muhammad yónne woon naa ci qawmu aad fami giir boobu axaahum seen mbokk waaye min an nasab laysa min addiin mbokk ñaar la mbokk deret ak mbokk diine waaye aad yàlla mu ne wa ila aadin axaahum yónni woon naa ci giir gu tudd aad seen mbokk lan la foofu seen mbokk ci deret mais du mbokk diine axaahum fi nasab yàlla ne maa ko yónni ci ñoom mu nekk ab yonent nekk ndaw xool leen yonent yi ni ñu baaxee ni ñu ragal yàlla moom nuux bu mu ñëwee bu am xuut bu mu ñëwee lan moo doon programme am qaala yaa qawmi ibudullah gis ngeen yéen nit ñi ñu ne amu ne jaamu leen yàlla pourtant ku yàlla yónni am nga ndomba tànk de bu doon ñun fii di nga gis ku président yónni wala ku kenn yónni rek ku chef de quartier yónni sax ñoo di ngand ngandalu ku dee sax da nga gis ñu xaar xaar leen diw yónnee na diw yónnee na xaar leen bu ñëwee di ngandal garaam bu man leen yónni léegi nag néew baa ngoog yëkkati ko da ngay ñëw rek ah ñëw na defar leen sàppe yi loolu rek la woon kon kay sàppe yi mënoon nañu ko defar bu yàgg jullee ko suuli ko qaala yaa qawmi abudullah yéen nit ñi jaamu leen yàlla na ngeen yëg ne maa lakum min ilahin xayru amu leen kenn ku ngeen war a jaamu ci kaw suuf sii di ko kennal ku dul yàlla keneen koo fi jaamu da ngay perte loolu dafa war a leer ci ñun barki dem wi ñuy firi nuux du loolu la waxoon ibudullah maa lakum xuuta ngi ni loolu la wax moo tax yonent yëpp ñoo bokk programme démb xutba nañ ko yonent yëpp ñoo bokk programme amul benn yonent bu ñëw naan man mii la ñoom ñëpp bu ñu ñëwee nii lañ def dañoo joxoon nit ñi seen baaraam yàlla dégager seeni bopp gis nga lan mooy résultat bi mu ne leen afala tattaqun lu tax du ngeen ragal yàlla bàyyi leen yëg yi ngeen def ngeen jaamu yàlla ragal ko waaye wax naa leen chaque jour dëkk boo dem am na fa ñooñu ñu naan mala qaala al malau alladina kafaru min qawmi inna la naraka fi shafaha mala benn groupe bu ndaw la groupe groupe bu nit chaque jour dëkk boo dem am na mala ña ngay tàmbalee maanaam mala mën nañoo fees mën nañoo fees saal mën nañu fees saal mbooloo moo xam ne mën nañu fees saal lay doon waaye duñ ko ëpp un ba vingt ñoom ñooy ponkal yoo xam ne chaque jour ñoom ñooy détruire dëkk bi suñ nee jaar leen ni ñoom ñoo naan déedéet bu leen jaar nii su dëkk ñoom ñooy réunion di tëralal nit ñi lu ñuy def ak lu ñu dul def ñooñ ñooy mala gang très bien très bien gang waaw wala ay lobby ñoo xam ne ñoo fi nekk su nit ñi waree def dara ñoom ñooy ñëw détruire nit ñi jàddloo leen nit ñi nag ndeysaan duñ xam nu mu demee xaalal mala mbooloo moomu ñu ne mbooloo moomu lan mooy seen pas-pas xoolal fuñ bokk yàlla mu ne alladina kafaru ci yéeféer yi lañ bokk waaye ci dëkk bi lañ dëkk ndax min qawmihi ci nitu huud yi lañ bokk ñu ci biir bi nuux ne bi huud ne ibudullah ma lakum min ilahin xayru afala tattaqun xam nga ñoom luy seen réponse inna la naraka la fi shafa yow daal ñu ne yaakaar ne yow da nga dof quoi est ce que booy bi desewul dafa fekk fi ay kilifa mu naan ñu jaamu leen yàlla est ce que kii desewul est ce que kii manqué wul xel mi est ce que kii waruñu ko yóbbu dalal xel xool ko te yaakaar ne daal xel mi dafa xaw a des waaw amul xam-xam daal kii daal amul compréhension kii daal muusul yeewuwul pourtant lan la fi wax bañ koy tuumaal ak ndof jaamu leen yàlla kese ngeen ragal ko loolu loolu ku ko wax da ngaa dof moo tax kuñ ko wax tey bu yeboo nga muñ parce que waxoon nañ ko démb ñu la gën kuñ wax tey boo nee yàlla kese kese ñu takkal la benn ticket war ngaa muñ parce que démb ñu la gën waxoon nañ ko ñu wax leen lu raw liñ la def wala ñu wax leen ko xuut bi mu ñëwee lan la fi wax bañ naan ko yow da ngaa dof da ngaa dese wéeroo bu baax quoi kii yaakaar nañ ne sax ay jinne ko jàpp non ku nekk di wax ñi naan jinne ko jàpp ñi naan dafa réew ñi naan noo dafa dof ñi naan amul xel ñi naan comparaison moo des quoi il faut ngeen muñal leen ndax xam ngeen xale yi nangam nangam diiney xale loolu la ñuy wax yow léegi ci diiney xale yi nga nekk amoon nañ benn paas suñu koñ quoi daa xëy rek abdu allahu akbar ñu ne diw diw caam de léegi ci diiney xale yi la nekk diine xale yi xabdu rek ñu ne diine xale dafa am diine mag paay di ko ndeysaan di ko kobosante ay xoolal caam xale yi la topp xale yi nañ ci diina xale yi la nekk moom dong mooy mag benn mag ci jàkka ji bu topp xale yi ndeysaan yemuñ ci ne ko da ngaa dof waaye ñu ne ko wa inna lana zunnuka min alkaasimin ñu sax yaakaar ne yow da ngay fen nag ah dimbali ñu nag dañ doon moytu rek moo dañu naan la da ngaa dof ak nanga mais xoolal dëgg-dëgg sax yow da ngay fen yow fan la la yàlla yónni kilifa yi nekk ci dëkk bi yàlla bàyyi leen fi di la yónni waaye dimbaliñ ndeysaan xoolal nekk fa naan dofuma nekk fa naan fenuma xaala mu ne yaa qawmi yéen samay mbokk maa ngi yéen ñoo juddoondoo fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo xam ngeen ma mu baax yéen a gën a xam ne laysa bi shafa xam ngeen ne dofuma dara daluma duma daanu rab ay jinne jàpp ñu ma jommi wu ma dofuma yéen ñii xam ngeen ko bu wér waaw da ngeen a nar musiba rek walakinni waaye man mii rasulun ndaw laa min rabbil alamina bu bàyyee ko ci borom mbindee fi borom asamaan ak suuf borom àddina bi moom yàlla moo ma tànn uballigukum risalaati rabbi gis nga comme comme comme nu nuux lu mu waxoon risalaat moom tamit lu mu wax risalaat waxul risala jamu la ko def loolu moo la ne message bi ñoom ñëpp ak ñoo ko bokk benn message la an ibudullah wajtanibu taaxut jaamu leen yàlla bàyyi leen xërëb yi loolu mooy message bi moo tax boo weddee benn yonent weddi nga yonent yëpp benn yéeféer dafa laaj na yéen man la yéen jullit yi jaaxal ngeen ma yéen ngeen bëgg takk chrétien ak yahud bu jigéen waaye nge ngeen bañ ñun yahud yeeg chrétiens yi ñu takk seen jigéen ñi maag docteur Diallo bu pédiatrie dañoo ànd ci benn benn liggéeyukaay ñoo toog salle d'attente di xaar directeur bi benn waaye fekk ma fa fekk fa ñuy waxtaan waaye ji jékki-jékki rek ne ma yow dama laa bëgg a poser ay question ma ne ko ah lu tax mu ne damaa xam ne yow oustaz nga rek ma ne ko de mu ne ma waay waay taay dimbali ma rek nga tontu ma ndeke ay pièces la lal ma ne ko bismillah mu ne waaw est-ce que jullit mën na may chrétien deret chrétien mën na may jullit deret ma ne ko waaw mu ne walla ñëw nga nag mën na ñoo mayante deret ma ne ko waaw mën na ñoo mayante deret kay mu ne waaw léegi nag lu tax ñun mënuñu leen a takk comme mën na ñoo mayante deret kon kay war na ñoo mën a takkante ñoom ñu takk ñu ñu takk leen ma ne ko déet ma ne léegi lu tax ma ne ko ñaari mbir la mayente deret mbirum àdduna la takk mbirum diine la fee yàlla dafa ñoo boole àdduna ñun ñoo ko bokk suñuy lekk dagan na ci ñoom seeni lekk dagan na suñuy yére seeni place seeni oto suñuy oto ah parce que loolu mbirum dund la deret bi dund la man ahyaaha parce que annama ahya naasa jamian gis nga naas la yàlla wax waxul sax mumin soo dundalee benn bakkan dundal nga ñëpp naas la yàlla wax parce que mbirum àdduna la amma takk nag mbirum diina la ma ne ko beneen question bi mooy ñun mën nañoo takk nasaraan mën nañoo takk yahud lu tax aman naa bi Moussa wa aman naa bi Isa alaysa kazalik ñun gëm nañu Isa wala gëmuñu ko gëm nañu Moussa wala gëmuñu ko ñoom nag gëmuñu Muhammad moo tax moo tax mënuñu leen a may suñuy jigéen ma ne ko bu ñu gëmee Muhammad léegi ñu may leen seen ñàkk gëm Muhammad moo tax duñu leen may jabar ma ne ko bul dem feneen loolu dong la mun naa wax nga dëgg de ma ne ko jeex na ma ne ko sa doom bu jigéen su benn waay ñëwoon ci moom nopp ko ngeen ñëw ba ci baay ji mu ne yow yaay baayam nga ne waaw mu ne gëmuma ne yaa yaay baayam waaye gëmuma la looy wax looy wax sa doom bu jigéen bi kii de duma la ko may kii caxaj ah léegi nit ñëw ba ci yow ne la gëmuma Muhammad te yow amoo ku dul Muhammad wala yéen am ngeen keneen ku dul Muhammad dafa doo dégg sax ñu tontu ci kaw yéen da ngeen am keneen ku dul Muhammad lu ngeen di noppi du ngeen wax ci kaw ñun amuñu ku dul Muhammad di annabiyu awla bil muminina min anfusihim allahu akbar wallahi amuñu ku dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi dégg dégg barki dem benn seex mu naan da ngay wax mu ñu naan sunna la rek sunna rek mu ne yonent bi dóor nañ ko ngir yow xas nañ ko ngir yow génne nañ ko ngir yow toroxal ko ngir yow mu indi la dara nga naan loolu sunna la rek te def nañ ko lu ne pour yow fase nañ ay jabaram rey ay saxaabaam xiifloo nañ ko marloo nañ ko damm ay bëñam xuri ay oomam ngir yow pour jottali le message bi pour boo dee dugg àjjana nga jël sunnaam di ko rekkal naan rek sunna la rek yow lu tax doo def li nga naan loolu sunna la rek quoi di ko sun di ko rek te yonent bi dee ngir yow yow xamoo li ngay dundulal moo tax saxaaba yi xamoon yonent bi ñoom addu alayha bin nawajis fii lañ màttoon affaire yi allahu akbar yonent bi day julli day julli jublu masjidil aqsa yàlla jibril yàlla yónni jibril yibril ne ko tourneel jublul masjidul haram yonent bi tourné saxaaba yëpp tourné bu mu sëlmalee mu ne leen sax nga tourné ñu ne ko yaa tourné ñu tourné muy jummi së muy julli sol dàll jibril ñëw ne ko dàll yi dafa am sobe simmi ko mu simmi saxaaba yi simmi dàll yi mu pare mu gis dàll yi ran comme sunu dàll yi nu muy ran vendredi mu ne lii nag ñu ne ko yaa simmi ñu simmi ñun duñ fi xaar de loo def ñu def ko ñun nag ñun nag yonent bi moo def li nga naan waaye nag ñun mag ñi fii ñun fii xam nga fii diw diw diw diw ku ko yónni kenn faa fekkoon na ma sunu jàkka ndeysaan mu ñëw ne ma yow léegi da ngay julli di def nii sa loxo loolu yàgg na nag de ma ne ko waaw mu ne lu tax ma ne ko yo- mu ne ma imaam Malik ma ne ko Malik yàlla yónniwu ko mu ne eh yow yow de dootuma wax ak yow ma ne waaw bu yeboo ma est-ce que waxuma ko dëgg Malik yàlla yónniwu ko di ku baax la woon borom ngir la woon waaye dafa toppoon yonent bi yàlla yónniwu ko fan ngeen gis inna arsalna malik muhammadu rasulullah yàlla malik yàlla yónniwu ko léegi naka lañ koy toppee bàyyi yonent bi waxuma keneen de malik rek laa wax dañuy toppee malik bàyyi yonent bi te moom sax dafa ne kullul kalaami yuxas wa yuradd illa saahibu haza al qabr imam shafii ne isa sax al hadis fa huwa mazhabi wala léegi ñu bëgg a yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mu ne leen laysa bi shafaha man de dofuma walakinni rasulun min rabbil alamin man ndaw laa lu yàlla yónni uballigukum ma leen di jottali risalaati rabbi samay message boroom laa dajale di leen ko jottali te kat wa ana lakum nasihun amin man mii day wax dëgg yàlla laayakatu biir laa boo xam ne amiin li may wax dama ci am confiance mu leer ma nañ li ma leen di laaya biir mooy bu ngeen bàyyee bokkaale bu ngeen toppee yàlla kese kese kese da ngeen di texe aduna texe alaxira loolu man dama ci am confiance bu leer naasihun amiin xam ngeen say nga am naasih mais nekkul amiin nag waaye mi kii naasih amiin li muy wax dafa leer ne lool mooy am ëllëg boo toppee yàlla boo dee da nga dugg àjjana leer na nañ lu ci am confiance am ci kóolute fi mu nekk nii man li ma leen di laayo biir nii yëpp wóoruma kat ndax bu ngeen ko defee di ngeen dugg àjjana wóoruma de waaye amma moomu yonent bi moom daf ko leer ndax yàlla ko yónni lii muy wax ku ko def dugg aljanna moo tax mu ne leen inni wa ana lakum naasihun amin alquran ne aw ajibtum aw ajibtum ndax da ngeen di waaru an jaakum mu dikke leen zikrun fàttali min rabbikum mu bàyyeekoo ci seen boroom waaye lan mooy seen problème ala rajulin minkum benn waay moo ko indi bu dëkk ci koñ bi di lekk mbaxal di naan kafe di war fas moom rek moo ko indi ngeen naan ko non yow kaña nga fi jàng kaña nga fi màgg kaña nga fi juddu kaña boo ne yàlla nee na rek ñu ne booy yi dañuy fontu rek ñoom ñu fekk fi sunu paa yi dund ba dee kenn bokkul yàlla nee na ñoom ñu ñëw naan yàlla nee na loolu la ñuy wax yonent yi xoolal ndax da ngeen di waaru an jaakum mu ñëw ci yéen zikrun fàttali fàttali la waa ji indi kan moo ko indi fàttali boobu fu mu jógee min rabbikum ci seen boroom waaye kan moo ko indi ala rajulin minkum kenn ku bokk ci yéen ci koñ bi ci famille bi ci dëkk bi moo fi màgg yàlla yónni ko ñu ne non non non non non non non il n'est pas question kanko o yetta ko sar yetteteɓe sar ɓe gardata ko jama amen hmm? a samba waaw moom de caam la sant non jàkka ji ku sant caam du ko jiite hmm. ñooñu duñ fi jiite ndax ñooñu seeni maam jànguñu woon waaw seeni maam jànguñu woon sët bi jàng na ba raw dëkk bi duñ ko jox jàkka ji ah non non non non non non non non ñooñu kay lu ñu jàng jàng tamit duñ fi jiite léegi nag loolu ban diine la loolu mooy lii di waa ji ñëw na yàlla tànn na ko yónni na ko yéen kay seen problème du loolu seen problème mooy vérifier leen ndax li mu wax am na wala amul ndax li mu jàng mokk na wala mokk waaye dëkk bi moo fi raw lu ñuy def moo ko xam ñu ne ko waaye nag say maam da- ah, ah, ndeysaan nag yow gis nga ku baax nga dëgg la sax dem nga ba jaameel islaam yi fa yonent bi tëdd foofu nga génne waaye say maam nag daaw ñu jiite dee nga baal ñu waaw loolu ban diine la ban diine la lañu la yéen ñuy dund Sénégal ñun te loolu ma lay wax nii mu dafa am ci ay dëkk de ay nit ay nit mokkal nañ sharia dee wallahi kenn mosu leen déglu buñ duggee jàkk ji fële la ñuy taxaw duñ sax ñeme wax xool waaw loolu loolu fan la nga gis ñu xamul dara nekk ci dëkk bay rajaxe te kenn ñemewul wax affaire du affaire maam yàlla bi muy tànn yonent yàlla hut muy daf ko tànn ngir maamam affaire bi du ay sant da ngay dégg ñii xoolal Sénégal rek ni ñu jëlee ay sant teg ci kaw ñëw ñii ñëw diw ñëw na acca bismillah na jàll si fii ñëw toog pourquoi moom nangam la sant est ce que xam na dara bay toog fii benn waaye dafa dee ñuy xaar sëñ bi mu ñëw mu yónnee dégg naa doomam doom bi ñëw ak garaam bu boo xam ne fees na jàkka ji ñëpp jóg taxaw diw ñëw na diw ñëw na acca kii lañ yónni ñu ne ko yow lañ doon xaar defar leen sàppa yi acca li xam leen benn paa jóge fale ne ko zaj indi ko ba ci digg sàpp bi samp ko ne ko këj ne ko summa yi ci risaala yaa ci mujj xam nga soo demee ci risaala buñ lay wax kuy jullee néew dañ lay wax ku mel nii ku def nii ku def nii di la ko limal di ko limal ba ñuy ñëw ci borom mbubb mu rafet mu ne ko mu ne ko yow summa yi ci risaala yaa ci mujj taxawal fii ndax yow mbubb mu rafet rek nga am ci diine paa bi wax na dëgg ku nit dee nga naan leen li xam leen defar leen saafe yi xam nga ne kooku wax dëgg yàlla dañ koo tooñ c'est ça le problème Sénégal moo tax yonent yàlla huut bu mu ñëwee mu ne leen bu leen waaru Sénégal dañoo gaaw a waaru da ngay taxaw di wax diine laay kii moo neex ay waay déggal mu ne sunu mees yi déggal mu ne sunu zippi yi ay waay déggal mu ne sunu dangal yi yow yaa neex xam nga ne yow eh waay waay toppal nee sëñ di wala raw te waxu ko yooyu lañ lay wax am na benn waaye bu ne buñ ne ko yow lu yow yow nga ni kilifa diine nga mu ne waaw ñu ne ko tax sa jabar yi duñ muuru mu ne man bis bu nekk ma dem ci kanamu kilifa gi mus ma ànd ak sama jabar yi musu leen wax nañ muuru kon bu doon muuraay dëgg la mu wax leen ko allah xoolal loolu xoolal loolu ci kanamu yàlla xool leen loolu ci kanamu yàlla bés bu nekk sa taalibe ñëw ci yow nekk ci caaxaan au lieu nga ni ko lii du dëgg nga noppi ndax lan
poñetu àdduna
ndax am na lu mu indaale indaale na lu duun wala fi nee nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa sànqal yi gars yi di indaale moo tax même bu ñuy lakk dëkk bi benn waaye daa def tojaange ba pare xam na ne tojaange la def borom dëkk bee ko war a àtte mu dem may borom dëkk bi mbax ne bu weex grand mbubb bu weex semis bu weex tubéy ju weex marakis yu weex yëpp jasinaire la mu ñëw ko mu rafet mu ñëw ne ko jour jugement bi solal lii nga ñëw waa ji sol ko ñëw bu ne ñaar ñi xuloo lu leen jote waa ji wax mu ne lu ngeen jote waa ji wax mu ne cey mbub mi mbub mi mbub mi nga ni lu ngeen jote waat yow waxaatal waa ji wax lu ngeen cey sama mbub mi waay kenn ki dafa fasa jabaram ñeenti yoon ñeenti yoon la fasa jabaram de mu dem ci imam bi jox ko dara imam bi ne ko garaawul ma def ma seede rek mu dem ci benn waay mu ne ko man de dama doon kii rek ma fa kii sama mu invité waa ji reer ginaar nag togg ginaar yoo xam ne indi mburu ñu lekk ba ci digg bi rek mu indi affaire bi waaw waaw temps yi dama doon kaf ak ndaw si rek ne ko waaye yow may naa la baax rek ndaw si ne ko ah am na ñeent mu ne ko non ma ne affaire kaf yooyu quoi kaf yooyu ah bu di ngi lekk ginaar gi nag mu bugg waa ji ne ko comme waa jaa ngi tim ginaar yi mu bugg waa ji ne ko comme ay kaf la woon waa ji ne ko am ngeen ñeent de mu ne ko non kii waa ji ne ko mane am ngeen ñeent mu ñuulal kanam waa ji ne ko am ngeen ñeent de mbaadu ginaar yi tax nga ne ma nga bay kii de am ngeen ñeent waa ji daal ne suur naa yóbbu daal su génn am na ñeent léegi lu tax mu invité ko ginaar pour waa ji mu ne ko danga doon kaf léegi mën ngaa jëlaat ndaw si waa ji génn gis ndaw si ndaw si ne ko am na ñeent loolu laa lay wax de su ngeen ma fa delloowaat nag bu ñu taxawee ci kanamu yàlla yéen la waa ji ne ko terminé ñu dem ci kanamu juge bi tribunal bu Géejawaay gii juge bi daal di woo imam bi nga ne ko loo wax yow mu ne ko ah waa ji ga- du- amul ñett ñeent ñu woo waa ji waa ji ñëw taxaw ñu ne yow nga ne lan mu ne ko ma ne am na ñeent jabaram a ngi nii moo ko wax nañ woo ndaw si te su amee ñeent charia dafa araamal seen diggante lu dul mu amaat jëkkër juge bi ne ko wax nga dëgg góor gi kii moo waroon nekk imaamu koñ ba wala léegi léegi nag il faut loolu ñu def attention parce que gars yi dañuy def seen tooxi doona ba pare indaale ay dara ay affaire yooyu pour bëgg nga saam diine yàlla bi nga saax saaxee ko moo tax ñoom ñu bëgg a waaru mu ne leen awa ajibtum da ngeen di jommi an jaakum mu dikke leen zikrun fàttali fan la fàttali ko bàyyee ko min rabbikum waaye lan mooy seen problème ala rajulin minkum benn waaye bu dëkk ci dëkk bi mel ni yéen moo tax yàlla chaque jour bu yónni yonent du yónni malaaka du yónni jinne ndaxte yàlla bu yónni woon ay malaaka nit ñi dañuy am problème dañ naan yàlla yow ñun xam nga ne kan malaaka yi ñun dañ leen a ragal mënuñu toog ak ñoom lu tax yónni woon nit bu yàlla yónni woon benn nit mu jógee Dakar dem Fuuta naan mane o holko wiyata minen min nanani ko kalata ko de huccu min to walla joyi wax minkum rajulun minkum wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi bu dee ay tugalóor ñoo fa nekk bu ñëwee danaan mbiimi allah wi ñu ne teg ñëpp di dégg bu dee ay olof la mu ne mane yàlla nee na ñëpp di dégg yàlla nee na wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi chaque jour yàlla bu yónni yonent rajulun minkum benn waay la bu bokk ci yéen wulida kama wulida albasar wa aasha kama aasha albasar wa maata kama yamuutu albasar yàlla da yónni nit koo xam ne ni nit ñi juddoo la juddoo xam ngeen papaam xam ngeen yaayam fii la nekkoon ci koñ bii papaam ak yaayam xam ngeen leen du dëgg ni nit ñi juddoo la juddoo ni nit ñi dundee la dunde da doon lekk gerte caaf di naan ataaya di lekk cëriñ mbuum yenn saa yi sax ngeen bokk petit camp kon xam nga ko bu muy dee noonu la dee dafa dee ñu dugal ko ci morgue bi sang ko sang ko wàq suuf si ba mu xóot dugal ko ci moo tax du nekk benn kéemtaan amul yonent bu yàlla di defal para musoo para fir ñëw na cëpp yàllaa ma yónni ban yonent la yonent yëpp dañoo judd ni nit ñi di juddoo ñëpp dañ leen a ëmb ñu judd nàmp ñu boot leen voilà parce que lu tax nit ñi su leen yàlla yónnee woon ay malaaka wala ay jinne wala wala wala wala wala gars yi yéen yéen a ngi ni toog suñ génnoon noonu léegi-léegi fi ñu dajeek benn kuy kuy mi nañu asalaamaaleykum taxaw leen wax leen dëgg kuy taxaw ci yéen na wax kenn ci yéen du taxaw kuy soo yeggee seen kër boo koy wax doo ko ñemee wax da nga yegg si tiit hôpital lañ lay xëy bu ñu la xëyee yóbbu la kuy kuy wax qu'est-ce que wér na damaa gis kuy wuy wax wala gis na nag bi mu ne ma asalaamaaleykum Eh, xam ngeen ne sawaay kon yàlla du yónni lu dul nit ci ñun ndax bu yàlla yónni woon leneen ñu joomi ah kenn ci ñun fii tey boo génnoon di sakku yi ñuy wax rek sakku da ngay gis sakku bi wax rek gars yi leen di sakku bi ñu ne day wax gars yi def ko ay kiimtaan waxuma la ak nag nga gis fi benn rab buy wax moo tax yàlla nit ku bokk ci ñun ku ñu xam ndeyam ak baayam lépp la yàlla di tànn yónni ko ci ñun pour mu ñëw wax ak ñun ala rajulin minkum li yunzirakum pour mu waar leen waskuru fàttaliku leen is jaalakum xulafa ba leen yàlla defee ngeen remplacé min baadi nuux nitu nuux yi ba ñu lankee yàlla alag leen ci tuufaan ma yéen ñii qawmu huud muy waa aad la fi yàlla indi kon yéen yéen waru leen sax dof nekk fii di def di dof doflu parce que yéen xam ngeen ne fii ngeen nekk dafa am ñu ngeen fi remplacé am na ñu fi nekkoon dee yéen yàlla indi leen fi benn waaye nee na ma ki gën a garaaw ci àdduna mooy ku takk jabaru ku dee ndaw si am jëkkër dee mu tënj génn nga takk ba pare ngay noos bañ a jaamu yàlla te xam nga ne yow jabaru ku dee nga takk ah allahu akbar ki gën a torox ci àdduna mooy ku dem suul mbokkam ba pare ñëw di fo te mu leer la ne li ko yóbbu dina la yóbbu amoo rabukaay kon nawe mu ko ma nawe li ko yóbbu nii xam nga ne moos ci yow la jëm yow nag nga fàtte ne man dama ah garaawal man de deewaguma léegi ndeysaan démb lañ may nettali barki démb benn booy boo xam ne amu siis dafa ñëw fekk gars yi di football ñu ne ko dugal mu ne la non man dama tayal quoi indaale ma mayo benn waaye simmeeku jox ko mayo mu dugg première bal ñu dóor ko ko fii mu daanu dee bal bi fii la ko dal mu daanu dee ma ñëw ñu may woon photo am ne ma kii la bal bi da koo dal rek mu daanu dee laalul bal bi dañ ko abal mayo waa ji dóor ko bal bi fii mu daanu dee amosis bi ah waaleykum salaam alhamdulilah avocat jërëjëf dégg ngeen wala fi nee nañ booy fen sori lal seede yi kii nee na xaritam la woon def na rek comment deux semaines yo jot nañ ko yóbbu ki ma ko doon wax moom nee na sapeur yi bi ñuy yegg si da fekk mu dee doog a dee gis ngeen bal lañ ko dóor fii bal fa la pare ah ko ku ko ne woon tey da ngay dee ku ko ne woon bal bi boo duggee teere bi da ngay dee kan moo ko wax bi muy bàyyeeku seen kër lan leneen wax maa ngi ñëwaat damay ndekki si gars yi waaw naa gis nga ah gars yi dañu war di sóoraale fu nekk mën nañoo dee fu nekk mën nañoo dee fekk fekk fooy dem sóoraaleel ne mën ngaa bañ a ñibbisi xoolal Cheikh Ahmed Hamid Kiss benn borom xam-xam la moom ci Égypte da daan jiite juma vendredi jot waa juma jaa ngay toog di ko xaar heure bi jot mu dem sangu jàpp solu di julli ñaar rakka ñaar rakk yi xam ne boo jàppee ba pare moom ngay def fi mu sujjóot mu dee waa jumaa ja amuñu lu dul imam dee na bu ñu jullee jumaa ba pare lañ koy jullee te waa jumaa jaa ngi toog di ko xaar moom mu nga kërëb moo ngi ñëw ñu ñëw ne leen imam bi ngeen doon xaar dee na ci sujjóot nit ki mën na war na préparer lu nekk ci àdduna gis nga booy xalaat ne mën ngaa dee fu nekk dootoo tardeel julli dootoo tardeel waxtu dootoo faw yi parce que booy xalaat ne su ma génnee mun naa dee su ma tëddee mun naa dee nga ñëw léegi jóge jóge jóge fële ñu ne la kaay ju liggéey nga ne damaa sonn waaye xaaral ma nelaw ba ci kanam xaaral ma tëdd ba kii ah, ah, ah. boo tëddee dee nag nga dem ci yàlla julli woo gee allahu akbar dama mos a dugg oto voyage yi jóge Casamance di ñibbi si accidenté oto bi dugg ci àll bi mbëkk garab ñun ñoo nekkoon ci kanam ñun ñëpp ba nee nii tël ci kanam dañoo pousse verre bi verre bi daanu ji fële oto bi ci biir àll bi benn garab a ko téye bi oto bi taxawee li ma njëkk a xalaat mooy ba ma yeggee Kaolack boole naa timis ak gee kon su ma deewoon du ma yóbbaale boru julli parce que ba ñu yeggee Kaolack timis fa lañ fekk ñu wàcc boole ko gee imagine bu ñu bañoon julli naan ba fële oto bi ñëw dugg ci àll bi ñun ñëpp ñu dee ñu dem ci yàlla julli wuñ timis julli wuñ gee fu ñu jëm il faut ñu bàyyi xel loolu il faut ñu bàyyi xel loolu mbokk yi il faut ñu bàyyi xel loolu il faut ñu bàyyi xel ne moomuñu suñu bopp yàlla moonu moom te yàlla fu mu ñu soxlaawee daf ñuy jël mbokk yi fàttaliku leen yéen dafa am ñu ngeen fi remplacé ginnaaw nit yi Nuux yàlla moom wa zaadakum fil xalqi bastatan yàlla moo leen may force moo leen yokkal doole ngeen njool nekk ay ponkal waaw xam nga nit dafa bëgg njool da ngay dégg Sénégal boo njoolee sax ñu ne non kii am kii américain la quoi américain kii dafa ceene quoi kii dafa jàpp mara gars yi di naan fonde di daw yëkkati poids di lu ne ñu def ko sax yi naa sax yi naan la na dëgër rek maa ngi lay xaar sax yi booy entraîné di nii nii sax yi dañuy ree kontaan naan tey danañ lekk ba suur mi ngi mel ne boo amee xar rek di ko defal ay ripaas ak ay rakkal ak xar mi di lekk rek nga naan allahu akbar rekkal rekkal bu baax noonu nga tiimee xar mi naan lekkal ak kontaan bëgg xar mi ngande nga dem wooyi sax docteur bi mu pikiir ko pour xar mi gën a ngande yow tamit booy entraîné noonu sax yi noonu la ñuy réññoowee ci sa bàmmeel naan yoo ñaam tan ñaam ha kaara emin doo pan ma noonu la sax yi naan la lekkal ba suur entraîné de na ceene na dëgër waaye buñ la jàppee di nga xam dégg nga de amul benn njëriñ entraînement boo xam ne amul yàlla ak du diine entraînement woo pour mun a taxaw pour mun a jaamu ya da ngay gis koo xam ne bu ñuy naafi la koor bu ñu taxawee imam bi di jàng hisib munu ko taxaw te boo entraîné jee da ngay daw cinquante minutes nga daw ko doo taxaw waaw wala wala suñ la nee kaay nga taxaw 10 minutes nga naan non dafa gudd quoi gudd quoi seen rakk yi man bëggoon naa dem seen jàkka ji quoi mais seen rakk yi dafa gudd quoi foog ngeen wax ak imam bi mu koy wàññi quoi parce que so ah te buñ la nee léegi kañ dem Cambérène nga sol sa kilo anawa di wane ne yow mën ngaa dem mën ngaa dem ba ah kenn mënul la dara léegi buñ la nee kaay julli taxaw 10 minutes nga naan dafa gudd.
comme match rek.
waaw comme match 90 minutes nga nekk ci terrain bi suñ la nee taxawal 10 minutes julli ah xoola imam bu taxawoon tey suba julli fajar mu ne day jàng yaasin ba mu jeex waaye da ngay dégg asalaamaaleykum imam baat bi neex na trop waaye nag yooyu lañ lay may de yéen yàlla dimbali Sénégal beneen adduna la nekk mu ne fazkuru fàttaliku leen ala allahi mayu yàlla yi laallakum tuflihuna ngir ngeen taxe mbokk yi ñun ñëpp nun noo war a ànd fàttaliku mayu yàlla yi fazkuru allahu akbar allahu akbar xoolal yàlla borom jaam ñi jalla jalaalu xoolal yàlla mooy yàlla waaye terewul mu naan ñu fàttaliku leen may yi ma leen may ndax ngeen taxe fazkuru ala allah gars yi yàlla may nan wala yàlla may nun fàttaliku leen li ma leen may fazkuru ala allah laallakum tuflihun ndeke fàttaliku mayu yàlla yi li la yàlla defal nga xam ne moom dong moo la ko may amul kenn ku la ko defal xoolal sa bopp rek wa fi anfusikum afala tubsirun xool leen seen bopp ku nekk na xool boppam fi mu toog la tàmbalee ci kawaram ba ci tànkam li ko yàlla may ana kan moo ko mun a defal ku la mun a may bët wala am na fi ku mun a may bët am na ku mun a maye noppam yi ku mun a maye bakkanam ku mun a maye bëñam ku mun a maye làmmiñam ku mun a maye loxoom ku mun a maye baaraamam ah kon lu ngeen mun a maye fii nii ngeen toog dara seen yaram mun leen koo maye gis nga kon fàttaliku leen may yi leen yàlla defal laallakum tuflihuna ndax ngeen texe loolu mooy sunu darsi tey ñoo ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na ay question ñu jël ko incha allah cinq minutes julli